ñi nga xam ne ñooy waajuru kooka nag wax ak ñoom kooka it soo waxee ñoom. bala ngaa bàyyi nga leeral addis bi masoon nga koo leeral sax waaye day tem bokk ci waxtaan wi. sunu mag ñi fii ak wolof yi. wax yonante bi nee na duñ ko eh, eh, ñett boo ciy dugg booy dugg ci kër ak aw fas ba ci soxna. Eh, yooyu laaj na nga seetlu ko noonu masoon naa di ngay leeral addis bi di kii yooyu yooyu. yooyu ma bàyyi la nga leeralaat ko tuuti rek. waaw waaw dëgg la maanaam wàllu gaaf wax nga dëgg ndax loolu dafa am lu mu jote ñi def lu istixaara ndax ñaare ñi ñëw ci xamkat yi naan defal ma lu istixaara ba ma xam ndax ndaw si may bëgg a dugg ñooñu ñaare dañuy daan dañuy daw jigéen ju euh, ju am gaaf su ko defee kooka di leen seetal ndax am na gaaf wala déet mm. yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne gaaf moom ci ñett rek la am mm. ci jigéen ak ci kër ak ciw fas mm. bu ñu waxee fas nag mooy warukaay Euh, bu fekkee ne ci jigéen la nee na mooy jigéen ju ay jikkoom ñaaw du dégg ndigal loolu mooy gaaf gi waaye du jaage ni mooy leneen loo xam ne daa làqu ci moom nga xam ne ku ko takk dangay génn àdduna wala sa wërsëg day dem wala yu mel noonu yooyu moom lislaam saxalu ko mm-hmm. ndax wërsëg aku fan daa bokk ci yi nga xam ne sunu borom da noppi ba noppi mm-hmm. euh, su fekkoon léeg-léeg dañ lay wax ne jigéen ji ku ko takk ko nit takkee génn àdduna mm-hmm. keneen takkaat ko génn àdduna ka koy takkaat moom nee na du taxaw sax doon lañ koy waxe ku dëkk <laughs> moo tax ñaari ku am ñaari ku tenji ñaari yoon ñaari bootul du gis keneen wala danga nga toog lu yàgg lool door a gis ku dëru fit ko ci ñeme dugg waaye mbir ma demeewul noonu nag ci jamono yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatimatu bintu umays soxna su baax la woon soxna su baax a baax a baax a baax moom dafa tàggoog borom këram abubakar siddiq jël ko yàlla dogal abu bakar génn àdduna ali ibnu abi jël ko mu yàgg ak moom lool nag am ak moom itam ay doom eh, kenn ku ci ne am naa ak yow doom joo xam ne muhammad la tudd moo tax ñetti muhammad amoon na ko ci ay doom bokk na ci yi ñuy nettali Euh, donte duggul dëgg dugg ci biir kii bi waaye mi ngi dugg ci buntub ñu xam ne gaaf amut foofu mm-hmm. mooy ñetti doom yooyu dañoo baaxoon ba nga xam ne buñ toogee léeg-léeg dañuy damu kenn ku ne di wax sa morom ne ko man man maa la gën bàyyi kële euh, mu ñëwee euh, soxna si fekk leen ñoom ñett ñu ne ñu ne kaay àttanu nun kenn ku ci nekk daa wax morom ne la maa gën Aliou ngi teew radiyallahu taala anhu kële mu ne ko yow day sa bàyyi <coughs> ci ndawi jullit yi gën a baax ci la bokk faatoo muta kii mu ne ko yow sa bàyyi magi jullit yi ñi ci gën a baax ci la bokk muy Aboubacar daal di yem foofu ne ci Ali ne ko ah wax a waaye man di dara deseetuma ko kon ndax ndaw ñi rek ñoo fi nekk ak mag ñi mm-hmm. mu ne ko yow day su fekkee ñett daje nañ ñuy tudd seenu baax fi yow kon ñooñu ak seenu baax jéggi na dayo ginnaaw ñu ngi tudd seen bu baax yow. <laughs> kon sa baax jéggi na dayoo. Mm-hmm. daal koy gërëmloo ci kàddu googu. Euh, loolu da lay ne soxna sa ku baax la woon. Mm-hmm. dund naag àll yi dund gu yàgg am nañ ay doom bokk ci Mouhamad euh, Ibn Ali Ibn Abi Talib mm-hmm. Euh, mu wane ne kon léeg-léeg aada yi ak cosaan yi yi nekk ci pas-pas yi day wute ak li am. Euh, su ko defee nag euh, loolu nga xam ne mooy ñetti gaaf yooyu mu tudd. soxna si gaafam mooy nee na mu ñàkk a dégg ndigal ñàkk am jikko yu rafet kooku moom gaaf la. bu dee kërit it nee na gaaf gi mooy xat. Mm-hmm. bu dee aw fas itam nee na gaaf gi mooy fas mokkut. fas woo xam ne daal dafa nekk xar xaroon li ñu tudde fas wu yi maam nga xam ne boo ko waree xamoo fu mu jëm ak yow kooko nee na loolu mooy gaafam kon gaaf gi lépp ay zaahir la waaye gaaf gu nekk baatin goo xam ne dafa nëbbatu goo xam ne dañuy wax ne ku ko takk moom daanaka duto amati dara wala kër gi ku fa dëkk ay yu nekk shayatin fa nekk ak yu mel noonu yu mel noonu moom doonul pas yoo xam ne lislaam daf ci soññee loolu euh, su ko defee nag jëmmi labat googu yi nga xam ne moom mooy mooy am su ñëwee ba yëgal baay bi nag bëgg gi mu ko bëgg su boobaa liggéey bi daanaka sooy bon mi ngi door a tàmbali. su fekkoon ni ñëw na wax ko ndey ji nangu. waajur wu góor wi nangu. nañ xam ne des na leneen mooy ak nangoom moom. moom ko jigéen ki. lu bari nag li nu miin noonu ci sun société ak sunuy aada ak sunuy eh, cosaan mooy waajur wu góor wi saa bu bëggee maye rek moom sañ naa maye. maanaam mën naa toog fële ba mu yàgg. mu xëy xëy rek ne suba day diw sàngam moom day sëy ndax may naa ko diw mm-hmm. euh, loolu aada la fi euh, léeg-léeg ñu def ko mu dem sëy ba tegu ci yoon waaye léeg-léeg ñu def ko it nag mu indi ay jafe-jafe mm-hmm. kon lislaam ni mu tëree mooy ak sa kilifte fu mu mën a toll ak sa sañ-sañ lu mu yaatu yaatu mm-hmm. aji dem ji nga xam ne moo nar a sëy nar faa nekk ëllëg may leen ko espace u xalaat yow mii yow kat diw sàngam ñëw na fi yow la bëgg demal nga toog waxtaan ak sa bopp ba xam luy say xalaat bul gaaw a tontu demal fekk ne jàngal nañ ko yar nañ ko ci diine xam na li mu war a def. Mhm. su delloo sañ naa jaar fu ku góor ki fa mu jaaroon. Mhm. diisoo laaj ñee ko xam diw sàngam moom yi yéen lu ngeen xam ci moom. ñooña mën nañoo doon ay góor mën naa doon ay xaritam yu jigéen yoo xam ne sax mën naa doon ay mbokki ku góor ki sax. yoo xam ne xam nañ ko jege nañ ko te doon ay jigéen mu laaj leen moom itam ñu wax ko lañ xam ci moom. sañ naa istixaara it ne ko ku góor gi defee woon ba xam xelam dana dal ci moomu déet su ko defee su loolu amee nag bu ca jógee ci lay dikkee nag joxe kàddoom wala mu ñàkk ko joxe su ko joxewul nag xel warta xalaat di ko di ko maye. Eh, yàlla xam ne li li am ci ay problème yi sëy tey yoo xam ne li ko waral mooy may nit ki koo xam ne waxoon na bu yàgg ne moom bëggut kii kenn xamul nu mu toll. ndax dañ lay wax ne fii mu nekk ci yenn sociétés yi ci ci suñ dëkk yi. Mm. am na ci yoo xam ne sëy yi ñuy fas ñii tasaat dem na ba àgg ci cinquante pour cent nga xam ne ñaari sëy yoo tas takk benn ba day tas. Mm-hmm. te biñ seetee gis li koy indi gis nañ ne loolu la ci ëpp mooy koo xam ne dañ ko may kum bëggut. kon nag mel noonu doon topp rek suñuy sañ-sañ en tant que koo xam ne kilifa la ci kër waaye dugal ci nag ki nga xam ne sa njaboot la di sa doom nga dugal ko ci lu mu bëgg loo xam ne bu demee <coughs> dana jël engagement sëy dëgg dëgg ndax jigéen ji bu bëggee dana nangoo sonn te loola ci la barke ba di jóge soo ko forcé nag mu dem foo xam ne moom xelam nekku fa jëmm jaa nga fa waaye xel ma nekku fa yéene ja nekku fa loola dugal nga ko ci problème bi boo xam ne dund jafe-jafe dund lay dund ñaareel ba euh, yàlla xam ndax dana fa mën a jële barke ndax àndut ak sell àndut ak xel mu dal àndut ak yéene ju sell itam su ko defee loolu dimbalanteeg moom ci fànn googu day daal di doon lo am solo ah, su loolu amee nag su fekkee dëppoo nañ eh, jàpp bis takk soxna daal di tàmbale am loolu ci lay bokk boo seetloo tërin woowu nga xam ne moom lañ ko def ba maye ko da ngay gis ne lépp dafa tegu ci tërin wu la mm-hmm. xam nga lislaam projet yu mel noonu projet bu sëy Mm-hmm. boo gisee ñu ne bëggante nañ ñu ne nañ jaar fii jaar fii jaar fii ba kër ñu takk mm-hmm. te lépp doon lu sell tànniin wa nga xam ne jikko ja ngay xool ak diine ji muy ko góor ki ak muy ko jigéen ki ñi ngi xalaat ka war a judd ëllëg fan lañ ko war a parapaaneel mu juddoo fa mm-hmm. moo tax dañuy wax ne yar yar fa muy tàmbale mooy fi ngay tànne ay waajur lislaam boo xoolee foofu la tàmbalee am na ku mas a ñëw ci Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu ne ko man de sama doom dal dama koy yar sonn ci moom lool te gisaguma daal yoon yi ma koy woon mu nangu cee jaar mu ne ko ñaata at la am mu ne ko juróom ñaar mu ne ko kañ nga ko tàmbalee yar mu ne ko ñaari at fi ne am naa ko yoo xam ne maa ngi koy jubbanti maanaam bi mu amee juróomi at ba mu ne ko da ngaa yeex maanaam da nga ko yeex a yar mm-hmm. ndax yar jiitu na muy juddu kon loola mooy mooy firi waxi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu moo di yar fa muy tàmbalee fi ngay préparé xale bi ngir mu doon ku baax ëllëg mooy ci préparé ñaari waajur yi. Eh, loolu moo waral lislaam sonn lool ci labat googu laaj fii dugg fii génn fii tàllal say loxo sa boroom ñaan ko mu tànnal la yooyu yëpp su amee ba mel ni mu war a mel nag. ñooñu ànd ëllëg ci li ñuy séentu ak njaboot juddoo ca goo xam ne. bu ëllëgee njariñ la ñuy doon du ci seenu askan dong wala ci seen bopp wala ci seenum réew waaye seen njariñ mën naa bëtt ba àgg foo xam ne sun borom tabaraka wa rek mooy xam ko muy àgg ji euh, boo xoolee ay góori lislaam yi nga xam ne la ko tàmbalee ca mag ñu jëkk ña muy saxaaba yaag taabiyoon ñëw seen gannaaw ci ay muslixuun ak sun mag ñu baax ñi ci sun réew yéeg liggéey yu réy yi ñu fi def ak garde lislaam ak garde alxuraan ak ba mu àgg si fi mu àgg boo xoolee ñooñu xool li nga xam ne mooy am tey ci suñ jamono ak liy juddu danga nga naan waaw ndax soxna yu jëkk yi nga xam ne ñoom ñoo daan meññ nit ñi ndax jiwu woowu dafa jeex mm-hmm. fekk li am mooy <coughs> yarin ya ak yoon yi nga xam ne fa lañ leen daan teg ñu di fa jaar ak yéene ci jigéen ji daan duggee ci biir kër di sëy si loolu lu ci bari dafa doon loo xam ne dafa tebbiku dafa soppiku ci kaw ay civilisation yoo xam ne yu ñu dugal ci sun réew yi la xalaatee yi soppiku ñu ne ndaw si dafa war a liibar góor gi liibar kii jaar fii kii jaar fii kii sañ-sañam kii sañ-sañam topp yooyu nag ba àgg ci kilifa amatut lu mel noonu nag su amatul li muy jur rek nag mooy loolu nit ñi mën nañuy sëy waaye li ñuy jur nag kenn xamut lu mu doon booy déglu rajo yi li ngay déglu ci ay ay kenn xam lu mu doon. suba tey jii rek maa ngi dégg ñi ñi ñi ñi nettali ci seen rajo bii defe naane ne. Eh, ku góor koo xam ne rakkam ju jigéen ji mu bokkal ndey ak baay. moo ko topp bëgg ko ne faaw dafa bëgg mu ànd ak moom ci ci wàllu sëy. ba mu sonn ci ba ñëw ci seen émission boobu yi. Mm-hmm. Euh, di di di ko fi jàmbat si. Mm-hmm. di ko fi jàmbat si di ko fi wax si moom ku góor gi. Mm-hmm. xam nga nit ñu mel noonu doo xam ndax ay ay xara leen jur wala ay mala leen jur wala lu mu doon. wóor na la ne sëy yu sell yu jaar ci yoon wi. ku ca jaar ëllëg mënoo indi njirt maanaam résultat ba mën a doon. jëmm yoo xam ne ñu mel noonu la ñuy doon moo tax dëngte gi faaw ñu delloowaat nag xool cosaan yi mm-hmm. xool takkini sëy yi xool yar bi nga xam ne ci lañ leen war a teg suñ juddoo jàngal leen alquran teg leen ci siraatul mustaqim ba nga xam ne lépp lu wàllu éducation laaj dañ leen di jaarale foofu ñu mel noonu mënuñoo wëlbatiku ni yoraat melokaan yu mel noonu su lool jàllee nag ñu dikk ci àq yi nga xam ne ci biir sëy bi kenn bu nekk da nga ko yoreel sa ndax sëy bi bu tàmbalee nag liggéey bi liggéey bi tàmbali na. ma ma de eh, diggante boobu sëy bi. Mhm. Eh, nan lay façon ba nga xam ne sëy am na ci diggante bi. Mhm. ak eh, imaam yi leen war a maye suñ fii. Mhm. noo gis ne du nu wala jeexat boobu war na am wala warut am nit ki buñ koy mayee war noo laaj mooy kan ak ñaata soxna la yor bu dee góor bu dee jigéen ñu laaj ba xam dafa idda wala wala nekk na ci buum wala idda wala doon na sëy walla nangam ndax sëy bi dëgër xom waaw bisimilah. waaw góor loolu lu am solo la ndax laaj ni ñuy tekk sëy daal. Mhm. kooku question la bu am solo ci suñu jamono jii. Mhm. Euh, loolu xam nga dafa doon loo xam ne di ci am yoo xam ne lislaam da koo tër am yoo xam ne dafa ubbi buntab buntab li ñuy wax ijtihaad maanaam soo xalaatee ba gis ne am na lu ci war a dolliku sax war na cee mën a dolliku euh, danaa la jox lool ci misaal suma ma ci accès euh, nañ tëree nga xam ne lislaam daf ne nii la mooy ñaari nit ñi bala ñu leen a maye nañu xool ba xam ñii ñu war a sëy la ñoom déet ci bokk ñii ñu war a sëy la ñoom déet ci bokk bëkk démb rek am na ku may laaj yàlla xam na ko matagul fukki fan Euh, daf ma téléphoné woo ma ne ma ki def yëf yi mi ngi nii toog xaaral ma jox la ko ma ne ko lu mu doon mu ne ki mu takk moom ëpp sëtam la ma ne ko nu mu doone ci yow sët mu ne maag jigéen ji nga xam ne moo jur yaayam mhm. maag moom noo bokk ndey ak baay maanaam daal sama jarbaat bu jigéen a ko jur sama jarbaatu bu lenqe bu jigéen moo jur ndaw si ma takk ko ma ne ko dangaa takk ba noppeem dangay bëgg a takk mu ne ma takk naa ba am doom ma ne ko ah takk nga koo munta yor de mu ne ma ah ma ne ko waaw kon foofu lu mat a seet la ci ñey maye responsabilité bu mag lañu fa am léeg-léeg nga laaj rek mu ne sa maam la ñu yaakaar ne diggante maam ak sët la noonu rek boo xam ne maam ju sori la ñu daal di maye waaye fekk na dafa war a laaj su nee sa maam la nga ne ko loo bokk ak moom bu waxee ne nangam ak nangam nga xam ne mënuñoo ànd nga xam ne kooku munta ànd bul maye laaj ku góor ki ñaata soxna nga yor ndax l'islam dafa wut limite boo xam ne boo fa àggee sañatoo caa teg kenn su boolee lu mat ñeenti gor sañatu caa teg kenn ku jigéen ci ñu laaj ndax mas naa sëy ñu ne na am dañ koo fase wala borom këram daa génn àdduna dañ koo fase ndax idam jeex na bañ ko fase léegi ñaata la toll ñu ne ah, moom de mat na at nga ne kon baax mat na ñetti weer baax ndax daf dafay tënji bu ñu nee waaw nga ne boobaak léegi summi naa ñu ne summi na bu yàgg nga ne kon baax na yooyu da nga koy topp ba xam ne ak bokk duxu fa ak gorom la yàqu nekku fa id nekkul ci idda te te nekk ci idda foofu idda ni ko lislaam tere sëñ Saliou foofu jaadu nañu ñu leeral ci tuuti mm-hmm. am na loo xam ne benn borom xam-xam moo ko trouvé bu yàggul ki wax Christopher muy benn américain mm-hmm. mu ne lislaam daf koo yéem moom sax ci loolu la tuube ndax benn biologique la koo xam ne ci xam-xamu euh, yaramu doomu aadama gu aju ci biir yaram wi ak ni muy tëddee ak na muy sosoo xam-xamam daa màcc ci wàll googu nee na dafa gis jigéen ji fi nga xamee ne fi la gëj a séye kam mujj a séyal yi nga xam ne mooy des ca moom kañ lay jeex ci biiru yaramam mu ne toog na lool diir bu yàgg di def ay ay test ak i gis ne lu bari ci ñiy juddu lu bari ci ñiy juddu nim leen gisee mooy waajur wi leen jur bañ di leen askanale am nay ndesit yu des ci jeneen jigéen jum geneen góor gum sëyaloon goo xam ne ndesit yooye mooy ànd ak ku góor ki lii mu indil jigéen ji ba tax mu ëmb mu ne nga xam ne gis na ne ñii seeni doom dañ cee am lu mat cinquante pour cent keneen am ci cinquante pour cent am ñu ci am soixante pour cent ñi ci des am quarante pour cent ñii am quatre-vingt pour cent ñii am vingt pour cent néew na nee na ci am réewam mu def analyse am yooyu gis ne kii moo jur kii cent pour cent mu ne li ko gën a gëlëmal sax mu dellusiwaat ci soxna su boppam bi mu defee ay analyse am gis ne ay doon ay doom yi boppam nee na juruma leen cent pour cent ndekete ndekete jabaram daf ko doon war ci biir këram mu ne nag bi mu gëstoo dëgg-dëgg gis na ne jigéen ji bu fekkee ne ànd na ak góor desit yi des ci moom nga xam ne saa bu ëmbatee desit yooyu danañ participer ci doom ji nee na loolu kañ lay jeex nee na daal li ko wóor mooy quatre-vingt-dix jours saa bu ko amee moom dara desutu fi ci ku jëkk ka nga xool loolu nag ni mu dëppoo ñetti weer yi nga xam ne moom la lislaam tër ne nit ki na ko iddawu door a dem sëy ji ak keneen loolu ba ko lislaam di farataal xamuñu woon sax ne lu mel noonu am na ci biir defoon nañ ne ki xas sëyoon ba jeex bu gisee benn régal jeex na te ëmbatul rek jeex na waaye léegi mën naa gis régal ba noppi ëmbul d'accord ab ëmb nekk fa waaye am na ay éléments yu fa nekk yoo xam ne pare nañ ëmb bu bëgg am bu nekk danañ ci participe bokk ca su ko defee euh, doom ja du doom ju sell kon lislaam rek daanaka ñoo am ay doom yu sel yoo xam ne dangay wax ni <clears throat> ki leen jur moo leen jur cent pour cent Euh, kon loolu lu ama am solo la ci wàllu idda jooju kon balaa maye war naa gëstu yooyu yëpp ba mu wóor ko ne amul benn gàllankoor bu jaree laaj diine ji sax mu laaj diineem ku góor ki danañ laaj li aju ci moom lépp laaj ko jigéen ki la aju ci moom lépp door a maye su ko defee man danaa wax ne ci jamono ji nu nekk bokk na ci yi nga xam ne war nañ koy laaj ci jàkka yi mooy bala ñoo sëy ñu def test ci wàllu wér-gi-yaram ndax am nay xeeti feebar yu am yoo xam ne tey amul woon démb te saa bu feeñee ci biirub sëy sëy ba yàqu na bu njëlee lu mel ne sida tey euh, bépp sëy boo xam ne feeñ na ci kenn ci ñoom ñaari way dencante ñu xamal ne boobu sëy yàqu na ak luñ bëggante bëggante luñ jéem jéem a ànd seenub sëy moom ak texe jóge na fa neexatut kon nag bala ngaa dugg ci loolu ak loo bëgg-bëgg nit ki ñu def test yu wóor yoo xam ne danañ ci xame ne ñoom ñaar ñii mucc nañ ci feebar boobu ak feebar yu demee ne moom ñu dooraleel seenub sëy ci plan bu wóor loolu jàpp naa ne boroom jàkka yi ci wàllu ittihaad war nañ cee dugal loolu di ko ci laajaale nga xam ne ñu ñuy may ñu ne daal danañ indi bulletin de santé buy wane ne ñoom ñaar ñi mucc nañ ci feebar sàngam te loolu am solo la nag lu ma ta bàyyi xel la su ko defee maye ga nag la ca la ca des rek mooy mooy maye dañuy wax ne sëy bi bis bi ñuy daje di ko maye mm-hmm. bis boobu déclaré la ñuy def waaye fekk na sëy bi amoon na ba noppi mm-hmm. bi ku góor ki ñëwee wax ne dafa bëgg diw mm-hmm. waajur mu ne ko kooku de d'accord naa ci may la ko mm-hmm. waaye nag nañ ko laaj ñu laaj ko mu ne d'accord naa mm-hmm. ñetti d'accord yooyu bi ñu amee rek kàddu yàlla moom taxaw na mën a guta sëy moom nag ndax defaguñ déclaration bi te dañ koo war a def moo tax ponk yi ñetti ponk yooyu muy kii ñaan si ak ki nga xam ne moom moo sañ a maye ak ki nga xam ne mooy aji dem gi ñett ñooñu kenn ku ci ne ponk la bu réeréy ci sëy bii boo xam ne faw mu joxe kàddoom sëy bi dooru mën a bi mu joxee kàddoom nag bi ñu ñëwee ci jàkk ja la ñuy def kooku mooy yëgle moo tax dañuy wax ne lu néew néew ab lim ci ay jullit nañ ko fekke ndax ñooña euh, dañoo dañoo bëgg a seede ëllëg mm-hmm. te it dañuy wax ne luñ gën a bari na bari ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xew-xew yu néew ñoo daan xew ñi di ko yéene mm-hmm. nga xam ne dañuy tëgg dara duf la ñuy tëgg ca mbedd ma ba nit ñi dégg ko ñu ne nangam xew na yu néew néew lañ ko daan defal sëy ci la bokk kon dañuy wax ne mooy de communication bi amoon ci jamono jooja bi gën a xumb moom lañ daan jëfandikoo pour yëgle sëy kon su jamono ji da lay won ne su fekkoon ne nit bëgg naa sëy kët ñëw def communication ci rajo bi defut lu juyoog lislaam mm-hmm. ndax luñ ci jublu mooy mbooloo mën a bari ndax kat euh, li tax mbooloo mi war a bari seede moom ci ñaar rek la tàmbalee su ko ñaar jullit fekke woon képp ñu maye ko sëy bi wér na waaye euh, lislaam dafa bëgg a dindi lépp loo xam ne lu lu lëndam la wala lu tuum tuuma mën a juddoo wala yu mel noonu mën nañoo xëy nit gis nga dugg ci sa oto am jeneen jigéen ju toog ci sa kanam ñi xool ko xamuñu ko te yëguñu fu ñu la mayee soxna ñu ne ah man dajal tey jii nangam nangam nangam mm-hmm. wala ñu daje yéen ñaar ngeen ànd ci mbedd di dox di waxtaan waxtaan yi yoo xam ne miinee su ko ci diggante ñaari jàmbur mm-hmm. ñi ñi tàmbalee ñaaw njor waaye nag su fekkee mbooloom dëkk bi yépp dajale nañ leen mm-hmm. ñu yëg ne gone gi dencal nañ ko may nañ ko diw sàngam su ëllëgee suñ dajeeg moom ci mbedd yi ñu xam ne kii am la àndal mooy ki ñu ko doon may bëkk démb su nekkee ci oto bi ñu xam ne kii mooy ki ñu ko doon may lënt lënt yooyu lislaam dafa bëgg muy dañ bu baax a baax baax ci lu mel noonu su ko defee nag maa yeggaree daal di am bu boobaa euh, su amee nag sëy bi daal di tàmbali sëy bi nag bu tàmbalee lislaam bi mu defee formalité am bañ ne ko sëy baa ngoog sëy bi bu leen neexee ca ba ñuy takkante ay charte mën naa am foofu yoo xam ne ku góor ki day wax ne sama charte mooy nangam ak nangam ku jigéen kat sañ na ni sama mooy nangam ak nangam charte mooy yi nga xam ne gis nga ne yow noonu nga ko bëggee. li ñu miin noonu mooy pour ne nit ki su takkee jabaram jël ko yóbbu këram loolu jarul ñu koy chartoo ndax aada daa mel ni moteur charte boobu. nga ne ko takk soxna daal danga koy yóbbu. kon loolu mooy cosaan nun ci suñ société waaye jigéen ji bëggoon a toog nag këram moom. bu ko neexee ba lañ ko maye ca waxtaanu labat wa man na ne ko man day dama bëggoon su sëy bi ameet man naa toog sama kër su waaja d'accord ci loolu mu wéy su fekkee waaja ne kon nga ah man kat faaw nga ñëw ci kër ga nag su boobaa moom ab sartam mooy ëpp doole su boobaa ndax moo mo ñëw di labat si su bo ndaw sa jiima soppi xalaatam jéem ko fekk si ci loolu waaye su dëgëroon ca loola it nag ba sëy bi ñàkk am ca loola it ku ci nekk sañ nga loolu mm-hmm. euh, sëy bu amee góor dafa am ay xaq yoo xam ne daf koo war ci digganteem ak soxnaam soxna si am ay xaq yu ko war moom itam euh, yépp boo ko seetloo ay xaq la yu dellu ci xaq yàlla ndax jaamu yàlla la goo xam ne li ngay def lay tax mu sell mooy dangaa xam ne defoo ko rek ni ci àdduna wante dafa doon loo xam ne tuyaaba nga ciy wut bépp jéego boo xam ne ku góor ki mi ngi koy seqi di ko defal soxnaam wala mu koy defal njabootam ci biir jaamu yàlla la nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne lépp loo def am nga ca tuyaaba ba ci ànd gi ngay ànd ak sa soxna sax ci néegub sëy bi saxaaba yi fa teewoon ñu ne ko ah yaa rasulallah nit ki di def loo xam ne bànneexam moo ciy juddoo mu cay am tuyaaba mu ne leen waaw waaw ndax su fekkoon ne bànneex boobu da koo def fu yàlla xaraamal lu mu cay jële ñu ne ko ah xanaa bàkkaar mu ne mu ngoog bi mu ko defee fu yàlla bëgg nag da cay am tuyaaba kon bi moom la war moom ku góor ki noonu la lislaam tëre euh, soxna si lu muy sol ca la ay kemam di sol loolu moom la war fu muy dëkk ci kem kàttanam moom ku góor ki loolu moom la war lu dul su fekkee soxna si dafa sartoon ne ko dëkk waaye teggil naa la ko maa koy wutal sama bopp can gi nga xam ne moom lay joxe it moom la war mooy la nga xam ne moom lay joxe ñu fas ko loolu moom lu ñuy waxtaan ba juboo ca la man naa bari mën naa néew waaye nag ci gën a néew moo ëpp barke yooya nag euh, suñu àndee euh, góor gi la ca des mooy yërmaande ji ca war a continuer nga xam ne daf noonu la war a dëkkeek moom rafetal jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wa da daan wax ne ki gën ci yéen mooy ki gën a rafet ay jikko ak nu muy àndeeg waa këram nu muy nekkeek waa këram ki gën ci yeen mooy ku gën a rafetal ab ànd digganteem ak waa këram digganteem ak i soxnaam kon foofu fa la góor ñi di rawante ci mbaax jikko yu rafet digganteeg ñi mu denc rafetal jëm ci ñoom lépp loo xam ne gis nañ lu lu mu di leen ko defal di leen digal lu baax di leen tere itam loo xam ne lu baaxul la su ko defee ku jigéen ki itam euh, li tege ci loosam ci lu war digganteem ak borom këram moo di rafetal yéeneem mu yëg ne day ñëw ci béréb boo xam ne jaamu yàlla moo ko fi indi dafa war a jël engagement ne fas naa yéene jàmbaar yañ daan jur ci lislaam ñu di leen dégg fas naa ma yéene jur ci kër gi jàmbaar joo xam ne des na ko dégg fépp muy jariñ ay waajuram di jariñ am dëkkam di jariñ am réewam di jariñ àdduna ak li ci biiram yéene jooju moo ko war a lal su ñëwee làmboo muñ ak rafetal ak toog ci këram sàmm njabootam sàmm boroom këram ci alalam ak ci boppam moom soxna si lépp loo xam ne ab jàmbur waru koo xam ci moom wala waru koo gis ci moom na yëg ne mooy keesu sekkerek boroom këram mooy coffre-fort bi nga xam ne moom moo yore caabi ji keneen ku dul boroom këram war warta xam dara ci ay mbóotam wala mbóoti këram wala mbóoti boroom këram loolu mooy war waru garu jigéen ji sàmm njabootam rafetal moom itam yërëm boroom këram di waxtaan ak moom di dalal xelam fexe ba këram nekk sakan comme niñ ko waxe woon ci bi ñuy tàmbali nga xam ne ku fa dugg su borom kër gi duggee rek ci texe lay nekk ba kër muy génnaat loolu mooy waru garam eh, ya ca desit mooy li faral di andi ak juuyoo ci kër yi moo di kuy laaj kuy laaj lu moomut hmm. wala ku dara war ba noppi defoo ko hmm. loolu ci nekk nag dana am léeg-léeg am loo xam ne yaa nga ci xëcc di laaj na faaw ñu defal ma ko te loolu fekk nag lislaam joxu la ko. léeg-léeg nga gis koo xam ne daa am lu nekk ci saw loos lislaam ne yow la war ba noppi fa soo ko yéenee def su ko defee yooyu lu ci nekk nag dana andi coow bu loolu lépp wéyee nag mooy kër du ñàkk faw ay ñagas-ñagas nag ñaar ñu dëkk ñu ne du ñàkk ñu dem ba mu yàgg ay jiw yoo am moo xam ci ay kàddu lay doon wala ci ay jëfin wala yu nuroog yooyu waaye loolu du gàcce xam nga luy gàcce mooy su jafe-jafe amee duñ ko mën a defar duñ xam problème su amee fan la ñuy jëlee solution duñ ko xam loolu mooy mooy gàcce ci kër su fekkoon ni kër mucc mën naa mucc ci ay rëng-rëng ak i jaxas-jaxas kon kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci loolu te kenn ku nekk xam na ne kër ga léeg-léeg mu daan yëngu ci kaw ay mbir euh, la indi woon in kuntunna turidna alxayaata addunia Euh, wa zinataha loola mbir la woon maanaam soxna ya dañoo dajaloo woon euh, xaw a sonal kilifa gi ci kër gi mu yonente bi sallallahu alayhi wa ci ay laaj yu metti ay wurus ay or ay njàmbat gis nañ ci kër diw sàngam ñi ngay def nangam kër diw sàngam ngay def nangam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal ko mu def li ñuy tudde xiyaar woo leen ñoom ñëpp ñu bokk toog alquran joju wàcc ci moom mu jàng ko ñu dégg mu ne ku ci àdduna tax a jóg kaay ñu tibbal la ci àdduna ji ba nga doyal waaye nag nga dellu bisu borom sa waajur kum ci neex daal mën naa laa duyal ba nga doyal léegi ci magasin yi nga yóbbu xaalis baa ngi fi or baa ngi fi nangam a ngi fi nangam a ngi fi nga yóbbu waaye nag koo xam ne la tax a jóg nag ak maanaam bëgg sa ëllëg baax ci sa digganteeg sa borom kon toogal ci kër gi muñ bi loolu amee kenn ku ne daf laa woo kenn par kenn jàngal la aay bi nga dégg ñoom ñépp ñi wone ne ñoom kat wax dëgg yàlla nag yàllaa ko yonentam moo leen yëkkati seytaane bari doole rek waaye àddina andiw leen fi kenn ku nekk delluwaat ci sëb say toog kon solution faaw muy am nag ci yi nga xam ne mooy xew ci ay rëng-rëng ci biir kër yi su fekkee solution amul rek loolu mooy gàcce ci biir kër dëgg la nag léeg-léeg mu dem ba ñaari ñi ko mu ñaari way dencante yi solution bi du mën a jóge ci ñoom ndax jéem na jéem na def na yim man yëpp ba mu të su boobaa nag faaw bu dee ku jigéen ki moom lañ jàpp ne li dëng ci moom la jóge walla ci ku góor ki la jóge dellu nag ci seeni waajur maanaam seeni kilifa ñoom ñëpp ñi bokk toog ñi gaaral leen problème bi ñu seet nañ koy saafara ni ko alxuraan waaye xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ñu indi leen ñi bokk waxtaan régler leen problème boobu su tee nag ñu door a génn na carrément seeti boroomu xam-xam wala lijjantikat boo xam ne mën na leen a teg ci aw yoon bañ jubbantiku su boobaa loolu mooy nekk solution ba fa sës ala kulli xaal euh, dana dellusiwaat di wax ne problème am ci kër du gàcce waaye problème am te kenn mënu koo saafara loola mooy doon gàcce ci ñaari way dencante ñi Serigne <laughs> naa <laughs> ñu ngi jéglu baax gudd na beneen kii bi sa xam naa di dig mbokk yi ne duñ ci mën a àgg muy wàllu miraas wala buñ ci dee àgg xañ na tuuti leen ci juñ waaye ci takk yi xew léegi bu fekkee léegi ci daganal sëy ndax loolu itteel na lool da gis koo xam ne da ko ne sama doom ji daal boo gisee kooku bëgg a may kooko mën a may jox naa la kàddoom na nga ko may dellu wax ko lu mat ñaar ñu safaanoo kële fas ko fee kële fas fee yëgoonte wunu wala benn bi ci desaati tamit doom ji nga jikk-jikk rek euh, maye ko noonu nga wax laaj ko laajoo ko xalaatam laajoo ko dara ak euh, beneen bi ci ñaareel nga xam ñetteel wala dara mooy takk yi xew léegi te nu koy joobe muy takk suuf yi lan la mën a jur ndax lislaam bëgg na yëg na loolu reconnaître na ko wala déet waaw alhamdulilah léegi li nga xam ne mooy kilifteefu ki sañ jigéen ji lislaam may na ko mu def li ñuy tudde tawkiil mooy kilifteef gi mu jox ko keneen mën na ko jox doomi baayam wala yi ndeyam wala góor gu mën a doon ci suuf ci ci kaw suuf su ne ko yow laa jox sama kilifteef doom ji jigéen ji soo gisee keneen may ko ko loola sañ na ko ah su fekkee da koo wax ñaar nag loola wax dëgg yàlla njuumtali foofu la tàmbalee ndax kilifteef ak maye buñ koy joxe faw ci benn loxo la war a nekk wala moom ci boppam xëy na bi mu ko ko waxee ba àggal dafa yëg ne moom it kilifteef gi des na ci loxoom ndax kilifteef gi dañut loolu mën naa nekk waaye dama jàpp ne bu fekkee nee na ko boo gisee kooku maye na nga ko maye ba noppi dese kàddug maye gi e, war nañoo yëgoo ñoom ñaar ci waxtaan suy bëgg a moom baay bi jur war naa waxtaan ak kële mu joxoon kàddu ne ko man kat gis naa fi ku koy bëgg ku bëgg te gis naa ne ku baax la kon danañ ko ko may bi sàngam que nga xam ne moom dañ koo tawkiil rek dañ koo dénk moom it bu gisee ku muy bëgg a may war naa wax ak baay bi jur ne ko man kat ki nga ma fi dénkoon gis naa fi ku baax koo xam ne bëgg naa ko koo may. su ko defee yëgoo kooku dana leen musal ci ñoom ñaar ñëpp ñu jékki-jékki maye waaye ñaar ñëpp jékki-jékki maye loolu borom xam-xam yi noppi wuñ ci itam maanaam fuqahaa yi nee nañ su fekkoon ne jigéen am na ñaari kilifa yu ne ci seen euh, baayam jox na keneen kilifteef baay bi maye keneen maye su boobaa ñaari mbir rek moo ci am su fekkee ne yëguñu beneen bi ba ndaw si ñu xas jébbal ko kenn ki ka des moom ñàkk na walla jébbal nañ ko kenn ki ba mu xas ànd ak moom ci sëy ka ca des ab sëyam kontatul jébbalaguñ ko ci kenn waaye xool nañ laaj te kañ lañ ko maye ñu ne ah, kii de ci première ci lañ ko mayoon keneen ki ci des nag ñu ne ba bis ba delsee lañ ko maye ñu ne kon ki ñu jëkk maye moo compte maye nañ leen ñoom ñaar ñëpp ci benn bis ñi ne su boobaa ñaar ñëpp dañuy teew ndaw si ci boppam ñu laaj ko ku la ci gënal su fekkee ne d'accord na ne kii la tànn ñu daal di koy may kooko ak wéyam daal di ak mayam daal di wéy keneen ki ci des ak mayam daal di ñàkk a wéy euh, ñetti solution yooyu lañ ko wutal ci ci ci ci wàllu fiq euh, waaye jàpp naa ne buñ defee jaaree yoon wi ñu war a jaar lool ci boppam sox dadul dadul mën a am euh, su ko defee beneen bi nga bi junj. dafa mm-hmm. daa takku suuf nga. takku suuf dafa am ñaari maanaa su fekkee ne dafa am lu ñuy tudde takku suuf boo xam ne waa ji biñ koy may e, soxna si amut ay seede maanaam kenn seedewu ko nga xam ne baay bi daal mu dafa ñëw moom waa ji ñaan mu ne ko may ma sa doom mu daal koy takkal doomam ñoom ñaar rek a fekke boobu sëy moom wérut yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne la nikaaxa illa bi waliyin wa shaahiday adl sëy du wér lu dul su fekkee ne dafa am kilifa gu koy maye maanaam mooy waajur wala ka toog palaasu waajur ak ñaari woy seede yoo xam ne ñu maandu lañ faw loolu am sëy bi wér su fekkee loolu lañ jublu ci takku suuf moom loolu du wér te defe naa ne lu mel noonu moom ñu bare bari duñ ko duñ ko def waaye su fekkee liñ jublu ci takku suuf nag mooy takk boo xam ne waa ji yëgalu ko ñam ko war a yëgal noonu lay faral di amee mm-hmm. léeg-léeg bokki ku jigéen ki sax ñoom ñu yëg ko waaye waa ji yëgalu ko ay soxnaam yëgalu ko ay bokkam ñoom ñëpp yëguñu yëguñu ne am na jabar moom muy rocc ko di dem ak ñëw te kenn du xam fu muy dem mm-hmm. bu fekkee ne bañ koy mayee sart yi war a daje yëpp daje na su boobaa ab sëy bu wér la ci lislaam waaye nag noonu mu ko tërale njuumte la itam ci wàllu social société buy dund dañ koy teg ci anam goo xam ne anam gu normal la ndax su fekkee ne waa ji euh, li tax yëglewut soxnaam mooy dafa ragal soxnaam wala dafa ragal ay bokkam wala nàngam yu mel noonu ndax yu mel noonu rek lañ koy faral di firee euh, su fekkee loolu rek la wax leen ko moo gënoon ci moom ñàkk koo wax ndax li ca mën a tegu ci ay inconvénient muy ay lor yu bare bari ci wàllu sociale yu ca mën a juddoo mën na ca am ñi ngi fii dégg ay gone yuy dem bay bëggante ay góor ak jigéen yu dem bay bëggante ñu gëstu gis ne ñoom ndekete ñoo bokk benn baay te fekk lu mel noonu moo ko juróom takk soxna mu noppi bañ koo yëgle gis nañ fi ay nit ñoo xam ne dañuy dem ba faatu ñu jékki-jékki ay jigéen ne ñoo xeete fële dikk ñu ne moo yoroon kii ñu ne fan la ko yore woon ñu ne moo ko yore mu génne certificat de mariage tàllal ñi xool gis ne moom jabar moom te ne gisu ko yooyu yëpp ay lëj-lëj la yoo xam ne lijjanti ko day doon loo xam ne lu jafe la moo tax yow mi jóg bëgg a takk soxna ak lu metti metti ak loo ragal ragal ñi nga ko war a yëgal toogal nga waxtaan ak moom yëgal leen ne man kat damay bëgg a takk soxna ndax su fekkee ne lislaam moo daganal ne la yow takk sañ ngaa takk benn ba ñaar ba ñett ba ñeent kon wax dëgg yàlla li ngay def ginnaaw loolu lislaam nangu la jarul ngay nëbbu su fekkee nag jéggi dayoo nag maanaam bëgg a takk lu ëpp moo tax mu di ko nëbb su boobaa moom sëy bi ci boppam sax dadul wér nag loolu moom na ko xam moom ku góor ki ci boppam donte ka muy ñëw di ko takk si amu ca bàkkaar ndax xamut lu xew su fekkee waxu ko ñaata soxna la yor waaye su fekkee xam na ko moom it bari bàkkaar ko day law si jëm si ci moom kon daal takku suuf moom doonut loo xam ne luñ taamu la donte nag mën nañoo wax ne su dee ci ñaareelu anam bii la moom lislaam mën naa jàpp ne sëy buñ takk la ci takkin wu wér waaye nëbb ga nag mën naa jur ay njaaxum yu mag a mag a mag a mag xanaa kon de xanaa. ñaari laaj fii rek <laughs> yu gàtt lay doon te it ma caataan mooy ñu kii nga xam ne maanaam euh, dafa dikk di ñaan si euh, su ndaw si bëgg na ko mooy aji dem ji xañ na kenn ci waajuram d'accord na <coughs> walla kenn d'accord ne duma la ko may ci nu nu tànne woon ci li xew léegi ci sunu. jamono ji benn ñu ne waaso sàngam la wala xeet sàngam la bokk duñ ko ko may euh, bu boobaa ndax euh, ku góor ke ku jigéen ki mën nanoo lijjanti ba nu may leen ko ci lu dul seen ñaari kilifa nak ci d'accord bu fekkee loolu wéy na tamit euh, sëy lan moo koy tas lan mooy firi diggante bi ginnaaw ñoom àndoon nan dem nan ba kenn ki bëggatut ànd wala ñoom ñaar ñu kii lan moo koy firi ci baat yu leer nañ waaw ci wàllu maye day euh, xadis bi ma tudd léegi day delsiwaat mooy laa nikaaxa illaa bi wali sëy boo xam ne du kilifa nga ko war a maye moo ko maye sëy booba du du wér léegi nag euh, dafa am mm, société yi ay romb-romb yoo xam ne dañ koy dañ fay jaar lislaam su fekkoon ne mooy atte su nit melee nam war a mel dikk ñaan si doomi diw sàngam kooku ne ko duma la ko may mu ne ko lu tax mu ne ko ndax yow sow askan nangam ak nangam la kooku am na droit ci porter plainte ci ci tribunal islamique ba l'islam bay atte sañ na ñëw moom doom ju jigéen ji nekkat sama baay daf ma bañ a maye te fekk li tax mu bañ koo def mooy ki ñëw ab jullit la am nay jikko baax na def na ni mu war a mel népp mel na ko te kenn gisul ci moom benn gàkk lu dul day wax ci askanu jàmbur su boobaa kat ba sañ naa woo bàyyi bi mu ñew mu ne ko yow de da mel diw sangam mi ñewon na sa kër di wut ci soxna mu ne waaw mu ne ko lutax nga gantu ko deglu ko mom ci bopam waxal bopam su fekke ne dama wax da wax ne l'islam wala jikko danañ ko laaj ci walu leeral lolé mu gis ba tax mu wax lolé lu mu doon su fekkee ne nag dane rek askan moo tax comme ne ko xale bu jigéen ba waxe woon su boobaa lislaam du nangu wax jooje danañ ko leeral nag lépp ba mu dugg ci boppam ba xam ne loolu warta tax mu nekk sabab suy tax ñi bañ a may nit ki jabar su dëgëree bopp attekat ba ci boppam am na pouvoiru maanaam lislaam may na ko sultaanu mu dindi wilaaya maanaam kilifteefi gam amoon ci ndaw ñi xool kësës ci moom ci ay bokkam ñu jox ko ko mu maye ko su kooka gàntu woon day xool ka ca sës ba ay bokkam di jeex suñ jeexee tàkk nag àttekat ba sañ na ko maye bu boobaa ndax lislaam moo tëri noonu te enquête bu mel noonu la ñuy def door koo def waaye société bi ni dund na nga xam ne lislaam àttewu fi nit ki ñëw nga bëgg a takk soxna mu ne laa yow kat duma la nangul ndax kër sàngam nga bokk te foofu ko bokk duma ko may jabar kenn mënu ci dara kenn amul benn solution boo xam ne mën nga faa dem bañ maye doomi jàmbur jooju lu tax moo di lislaam ak teewam fi di àtte dafa am njëriñ yu bari yoo xam ne dafa koy jëriñ jullit yi waaye ak ñàkk àtteem dafa am lor yu bari yoo xam ne day tegu ci seeni loos te boobu ci la bokk maanaam day am ay problème yoo xam ne du am solution li fekk lislaam nekku su boobaa kenn sañ te maye doomi jàmbur lu tax kenn sañu ko mooy su fekkoon ne nangu nan ne diw sàngam ñaan si na doomam mayu ko ko ñu ne ah kon nañ dem seeti rek benn borom xam-xam wala imaam mu may ko ko ñu daal dem mu may ko kon kenn ku nekk fu mu la neexee mën ngaa dem takk doomi jaamur te du ko yëg te loolu du yem fenn mën ngaa yor sa doom ci kër yëgoo ko sax ne dara xew na nit dem ci ab imaam wala dara ñu ne may nañ ko te yëgoo ko su ko defee loolu lor lay doon joo xam ne kenn xamul fu mu jëm te it day mujj anarchie lay doon li ñu tudde fawda moom lay nekk ci société bi muy société bu bu jaxasoo boo xam ne jëmatul fenn euh, moo tax ginnaaw daal lislaam du moom moo def enquête boppam ba maye su boobaa nag euh, waajoo ji daal borom kër googu dañuy négocier ak moom jéem a waxtaan ak moom dugg ko génn xool ñi man ci moom dara ñu waxtaan ak moom ba mu nangu waaye su fekkee jéem nañ jéem nanguwul it nag kenn mënta maye doomi jaamur ci ci bunt bu mel noonu su boobaa ku góor ko may dem seeti keneen rek waaye sëy du mën a am foofa nag amma li ñu tudd nag tàqal ko ci sëy kooku ay mbir dana ko waral maanaam suñ koy def niñ koy defee ñett lay doon mën naa nekk passé li ñu tudde passé mooy daal euh, li nga xam ne yàlla da ko teg ci loxo ku góor ki dem na daal ba xam ne àgg naa naag soxnaam si foo xam ne mënatu la continuer wala bëggatu la continuer mu jeexal sëy ba foofu woo ko mu ñëw mu ne ko fase na ko dañoo bëgg nag mu rafetal ko maanaam bu ci ak bokk yàqu bu ci li ñu ay fayu awal alal ak yooyu yëpp defoon naa ci yow nangam demal jox ma ko nangam yooyu yëpp bu mu ca dugg day ñaawal rek beneen bi ci des mooy li ñu tuddee al xolu xolu nag ci loxo ku jigéen ki la nekk ni yàlla tege pese ci loxo ku góor ki noonu la tege xolu ci loxo ku jigéen ki maanaam saa boo xamee ne jigéen ji dem na ba attanatut moom it nag ku góor ki problème yi dem na ba jéem nañ jéem amuñu benn bunt bu mën a fajoo ku góor gi sañ naa ñëw ca imaam jamay won sëy ba wala ku ko wuutu ndax koo kay toog palaasu xaadi foofu mu ne ko man kat sëy bii mën ci wéy ndax nangam ak nangam ak nangam kii nag lii la ma jox moom ci can mi ngi nii jox ko ko te tas sëy bi su boobaa e, yoon wa fa nekk moo xam ab naa lañ koy tuddee wala imaamu jàkka la wala borom xam-xam boo xam ne ñoom ñaar d'accord nañ ci mu àtte leen su boobaa kooku mooy jël can googee jox ko ku góor ki ne ko sëy kat foofu la yam ndaw sa dem jàpp yëdd kooku la ñuy tuddee xolu xam ne mooy delloo can duñ ko tuddee delloo alal ndax lislaam amut lu ñu tuddee delloo alal waaye delloo can lay tudd la ko joxoon rek noonu lay demee saabit ibnu qays dafa toog soxnaam ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man daal saabit ibnu qays mii mënatumaa nekk ak moom ci wàllu sëy xeebu ma nag ci diine wala ci jikko waaye dama ko bëggatul noonu la ko ko soxna sa waaye de yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax tol bam la joxone bam lay tak mu doonoon can nga ndax man nga ko ko delo mu ne ko tol ba ngok duma fa delo wat di koy jox tol yonent bi sallallahu alayhi wasallam taqale sen digeunte ñettelu li nga xamne ne fay jexal ci moy li ñi tudde mulaana su fekke ne ku goor ki dafa soxnaam ci epsi muy wala kooka dañuy rëbboonte ñoom ñaar dañ leen di woo ca jàkka ja wala ci bërëb boo xam ne tànnee fi jullit ya dañ koy fekke moo xam imaam jaag ay naayibam ak boroom xam-xam ya dañuy teew ñi ñëw kenn ku ci nekk waat ci kanam nit ñi ku góor ki day waat ne lii ma ko tuumaal moo ko def su ko defee boobu juróomi yoon keetam waat juróomi yoon ne lim ma tuumaal defuma ko su boobaa dañuy tas sëy ba foofu sëy ba yam foofu te nag boobu li ci garaaw mooy ñi ko xas def moom mënatuñoo ànd ba faw ginnaaw ginnaaw rëbbonte wala waat moo tax ñoom ñaar ña tàggoo boobu sëy bu ñu ko xasee dagg jeex na bu fekkee ab ëmb da caa am ca loolee ñu doon junj lañ doon joxoñ doom jooja it ba tey diisu ko tudde doomi njaaloo waaye diisu ko tudde doomi ku góor kayitam la wutale lool nag ak ak ak ak tudde ko doomi njaaloo moo di ne kenn waru koo xool bëtub loolu mukk euh, dañuy jàpp ne doom la ju juddoo ci lislaam waaye mu laa ane moo tàqale diggante baayam ak ndeyam loolu moo tax yéegaluñ ko ci waajuram waaye duñ ko tudde atte yi am ci doomi njaaloo du tegu ci kawam ñetti bunt yooyu daal benn bu ci nekk euh, sëy dana ci jóge kon boo xoolee da ngay gis ne am na paar boo xam ne àqi ku góor ki la mooy sañ a fase am boo xam ne aqi ku jigéen ki la moom sañ naa demandé ñu fase ko am boo xam ne daa dox seen diggante ñoom ñaar ñu séq ko ku ci euh, saa boo xam ne tuumaal na ko moom ku jigéen ki tuuma ju réy jooju euh, te amuñu benn firnde bu koy dàq wala bu koy saxal su boobaa ñu ñu rëbbonte maanaam ñu waat ci kanam mbooloo mi suñ noppee sëy ba daal di tas ndax naa ñu tëj jotaay bi rek xanaa ma bàyyi la léegi looy tëje ci wàllu collecteur kii bi ndax tudd nga ci problème parce que may déglu rajo bi ñu wax ne bis bu nekk yaakaar naa ne lu mat xawma téeméeri sëy wala nangami sëy dana tas buñ demoon tribunal lan fay fekk ci dossier yi àtte ci sëy du amul ci yeneen problème yi te société bi yaa ngiy wax ne dañ ko nosoon ci tabax ngir mu mën a doon société bu sell waaye léegi bu dee ci suñ Sénégal gi da ngay wax ne yaakaar naa ne bëreetul lool bu dee ci wàllu jigéen ñi junj nga ne jigéen ñi amoon jiw wi ndax jigéen ñi rek la woon seenu jiw wala jiwu góor wi ak jigéen ñi loo koy tëje noonu ngir labiré nit ñi ci sant bu la sante bu baax a baax ñaanal la ci waxtaan wi ni mu tëddee di la sant bu baax a baax a baax waxtaan wi itteel na lool ndax ni wala boo xamante ni ñiy dund ci société sëy te xamuñu ko te man cee jariñu yaakaar naa bari na lool ak ñi ko ñi ko xamoon te fàttaliku wun sax ni nga wax ni wante yàlla waxtaan wi daal baax na lool lool lool lool lool yaakaar naa alhamdulilah noonu yi nga ko waxee noonu la amee ci tribunaux yi dañuy wax ne dossiers yi fa gën a bari mooy yooyu sëy te li ñu xëy di tas ci ci bis ci tribunal bu nekk ci ay sëy kenn xamul lu mu lu mel noonu nag bu fa ab société àggee man wax naa ne am na ay mbir yoo xam ne aajowoo nañ ko ñaari mbir sax moo ci gën a fës benn bu ci ne noonu fa nekk fële noo ngi ciy jéem. mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci sëy sax ak ñi bëgg a sëy te sëyeeguñ. Mm-hmm. man jàpp naa ne jot na ñu di leen defal ay formation ci wàllu sëy. Euh, ñun am nañ léeg-léeg ay ay séminaires yu ñuy def yoo xam ne par ñaari fan lañ koy def léeg-léeg. Mm. yoo xam ne ndaw ñi ñi door a dugg ci sëy ak ñi nga xam ne dañ ciy bëgg a dugg te dugg guñ ci. Mm-hmm. ci la ñuy waxtaan ak ñoom ci problématique yi nga xam ne mooy muskilaat yi gën a xóot muy jafe-jafe yi nga xam ne ñii sëy te di ci door a dugg te amaguñ expérience bi moo leen di faral di gaar nan lañu fan la ñuy jaar ba saafara ko. ñaari ci lu mel noonu lañ koy def kon jaadu nañu préparer ndaw ñi tey muy ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi bëgg a dugg ci sëy yan orientation dëgg-dëgg yu ñor ba noppi nekk yu direct maanaam yoo xam ne amut làq-làqal yoo xam ne ca lañ war a jaar ba suñ duggee cib sëy mu mën a dëgër wala sëy bii ñu dugg ba noppi ñu mën koo garde loola defe naa ne soxla nañ ko ci jamono yi ñu toll beneen bi ci des mooy soxla nañ nag dellusiwaat ci. boroom xam-xam yi ak boroom xel yi ak defarkat yi ba dañoo yëkkati ab dossier di ko yóbbu tirbinaar jaadu na delluwaat ci ñi nga xam ne lislaam ci la ñuy dund tam ñor leen ñu yéwénal diggante yi man jàpp naa ne war nañoo mën a dem sax ba Euh, taxawal ay kër wala ay bureau yoo xam ne jullit yi seen bopp ñoo koy taxawal yoo xam ne ñi am ay jafe-jafe ci seen wàllu sëy ci seen wàllu miraas ci seen wàllu nangam seen wàllu nangam ba ñu dellu ci ñoom ñu jubbanti leen defe naa ne loolu suñ ko defee résultat yi ca mën a juddoo mën naa tax ñu dem ba dossiers yi nekk ci tribunaux yi sox mën naa dem ba wàññiku bu baax a baax a baax loolu noonu noo ngi ciy jéem fële euh, ñu nekk ca daara ja daanaka talaata ju nekk boo ñëwee foofa da ngay gis ne mbooloo mu bare bare bare ñëw xëy na ñàkkul yeneen itte yu leen di yëkkati waaye la ëpp ca la leen di yëkkati mooy loo xam ne lu aju ci wàllu sëy ak i jafe-jafeem la su borom kër bi léeg-léeg suñuy agsi mook soxna si suñuy ñëw o tàngoor la indaale woo xam ne benn baat rek la ñuy wax dañoo bëgg daal ku ñu tàqale boo laajee lan moo xew ba ngeen bëgg a tàqaliko buñ ko waxee ba àggal léeg-léeg boo waxee ñoom ba noppi bu ñuy jóg di dem sax yàlla xam na ne dañuy jooy di lu kenn ku ci nekk su ko defee moomu mbir moom dañ koy daal di fàttali tàmbaliwaat dund gu bees eh, yu mel noonu nag eh, dafa war a gën a yaatu war a gën a bari ba war cee mën a am ay ay autorisation ni koy amee ci génneel ab association autorisation defe naa ne war nañu mën a dem ba bureau yu mel noonu am ci dëkk yu mag yépp euh, nga xam ne nit ñi dañuy dellusiwaat ci ñoom di leen doyloo ci seen wàllu diine ci seen wàllu doxin ñi di leen jubbanti ci wàllu diine ak ci wàllu xel su ko defee defe naa ne jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñu ngi koy dund nag ci wàllu sëy war naa mën a dem daal ba saafaru sëñ Saaliwu di dellusiwaat nag yéen itam di leen sant bu baax a baax ci jéego yu am solo yi nga xam ne yéen a ngi koy def ci liggéey bi di ñaan borom bi tabaraka wa mu taxawu leen taxaw rajo bi itam euh, ci bépp liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci wàllu jottale ak yaatal ak xamle euh, ak xelal nit ñi ak delloowaat leen nag ci seen diine ci seen cosaan seen aada yi nga xam ne lislaam nangu na ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barkala <laughs> jërëjëf euh, docteur sunu xol sedd na lool ci waxtaan wi ni mu tëddee ak ni nga xam ne wax te yàlla yaakaar naa ne ruq la yoo xamante nii ku ko déglu te euh, xam te te yàlla defal la ci tawféex di nga ci gindikoo bu baax a baax wax nga dëgg li nga wax ni mag ñi sun mag ñi fi newoon bu jëkk problème yooyu dafa am ñu jëloon engagement di régler sëy yi mm-hmm. di ko dox donte yi amut woon waaye ñoom seen ak farloo bëgg lu baax mm-hmm. def bari na sëy yu bari yoo xamante ni ñox te yàlla mag ñi buñ lay nettali histoire mm-hmm. ñoo ko lijjanti kon nag buñ demee ba jamono bi ñu laaj ko eh, wax te yàlla war naa jot ñu ngi lay sant bu baax ñaari tomb yi waxoon benn bi àggunu ci ta bi nu tàmbalee daanaka mooy bi war a mujj ak tàmbale ndax bu nu tàmbalee nit ki fi muy sëyee fi muy génne àdduna lam fa